rek la loolu nag yitte yi yitte diine lislaam jenn jenn yitte rek la. Hmm. ñun ñëpp noo ko bokk. gàttal nañ leen bu baax fas yéene ko ànd ak ñoom. ci li leen li fi indi. tabarakallah sunu sunu sunu xel dal na bu baax. ci boole gi leen booleeg sëñ Yuusuf yi. Hmm. jiital kuréel bi kuréel lañu boo xam ne eh, lépp luy jariñ doomu aadama ci lislaam loolu rek moo nekk ci ñoom loolu rek la ñuy xamle loolu la ñuy ñoom loolu moo tax ma boole leen ak ñoom allah li ñu bëgg rek moom lañu bëgg. yàlla ko kon nag noo leen di cant jërë cant gu rëy a rëy mm-hmm. ñu ñu yóbbaaleel ñu koy ci kilifa ga. jéego yu ñuy def ba ñëw Sénégal ba ñëw Touba jéego yu ñu yëg ci suñu xol la. ñu rëy la ci noonu.